bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama wa barak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Afiya Buso wala imaam mi nga xam ne moo jiite daairatu muqaddamatul xidma di leen nuyu it ci turu bureau daairat muqaddamatul xidma bépp tàmbalee ko ci sëriñ Abdul Ahad mi secrétaire bi ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk daayira bi yëpp di leen nuyu itam ci turu mbooleem membre yi bokk ci daairat muqaddamatul xidma nekk ci biir réew mi nekkit ci bitim réew fépp ci àdduna bi di am mbégte ci dajawaat ak yéen ci jataay bu tedd bii nga xam ne baaxoo nañu at mu jot ñu daje ko ak yéen ci barab bii te muy loo xam ne mën naa dugg ci ñaan gi sëriñ tubaa ñaanoon boromam ne ko maa ngi lay ñaan nga defal ma murit yépp ñu nekk ci benn nos nga dajale seen mbooloo ñoom ñépp yaa rabbi jaalil muridina maa fi ni la xasini wa samlaj maa nañ nekk ci sa biir kaaraange te nga boole leen nag takk leen def leen wenn say jublu mbooloo mi ci daje bi ñuy daje xam nañ ne kenn ku nekk ci ñun fa mu nekk am na pas-pasub liggéeyal Serigne Touba te ma ngi koy def na mu ware waaye daje gi nii dafa am solo lool ndax bokk na sax ci li tax sunu borom sàkk doomu aadama yi yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu kon xamante gi nekk na lu am solo ay nit nag suñu bokkee pas-pas bokk yéene bokk ab liggéey ñuy daje di xamante ba kenn ku nekk bu ëllëgee fu mu dajeek moroom xam ne kii kat ñoo bokk nangam loola nekk na lu am solo kon loolu rek jaaroon nañu daje fi xamante bii ñu def rek ki jóge Mali xam ki jóge Amérique ki jóge Côte d'Ivoire xam ki jóge Espagne ki jóge Scotland xam ki jóge Togo loolu rek liggéey bu rëy la bu rafet la boo xam ne jar na ñu di fi daje rawatina nag kàddu yu am solo yi nga xam ne dégg nañ ko fi tey jii yépp di kàddu yu soññee di kàddu yoo xam ne genn rek gum ci mën a doon waroon naa jar ñu paas ngir dem déglu ko kon suñu dajalee kàddu yooyu yépp dana nekk ab soññi ci ñi nekk ci biir réew mi nekk itam ab soññi ci nekk ci bitim réew di sant sëriñ mu Mustafaa Mbàkke mi nga xam ne moo doon séddale kàddu yi te jàngale nosu gi nga xam ne moom la daayira bi nosu waaye loolu nag du kiimaan ndax yoonu murit ñàkk am nos moo ciy gan waaye nos moom du ci gan ndax sëriñ bi moom dafa mas a nosu ñim yaroon ñëppit dañoo nosu woon kon ñàkkum nos mooy doon gan ci yoon wi waaye nosu du fi gan yaakaar naa ku mel ni sëñ Fallou Diop mi dana ko neex a waxal ay at ci ginnaaw rek fanweeri at ci ginnaaw boo masaan dugg ci dëkk bi da xam boo demee que Sëñ Blaat wan waxtu nga koy mën a gis xam Cheikh Abdoul Khadir wan waxtu nga koy mën a gis xam sëñ Chouaïbou wan waxtu nga koy mën a gis xam sëñ Saliou wan waxtu nga koy mën a gis sëñ boo fi tudd ci dëkk bi rek dañu lay wax ne heure sàngam boo demee da nga ko gis yaakaar naa loolu ak nosu mënu ko weesu kon mën nañoo wax ne ñàkk nosu mooy doon gan ci yoon wi waaye nosu moom du gan ci yoon wi ndax moom la yoon wi judduwaale te Cheikhul Khadim aw dëkkiinu këram rek ci la nosu tàmbalee woon bañ na ko ba dëkk bu murit boo dugg ci Sénégal rek boo amee seetlu tuuti boo ne yulub ci penc mi rek xam ne lii dëkk bu murit la te nos boobu ci Serigne Touba lañ ko jëlee kon nos googu nekk na lu am solo te mooy organisation bi nga xam ne moom lañ waxoon léegi daayira bi kon nekk lu organisé wu waaye ci biir xam ne gi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad doon na ko xam ne daayira bi léegi leer na lool rafet na lool mat na sëkk dafa nekk nag loo xam ne ñu seq ab liggéey dañoo war a xam li ñuy liggéeyee lu mu doon lañ seq kenn ci ñun ku nekk ku dajeek moom bu ko laajee lu jëm ci daayira bi war naa mën a tontu ci biir loolu nag yooyu mu wax rek ni la daayira bi di doxe daayira bi dafa am ay charges yu diis charges yu diis yooyu bokk na ca personnel bu muy liggéeyloo am na ci biir ñoo xam ne da di fay ci biir fay googu am na ci ñuñ koy jàppale ñoo xam ne maire bi mi ngi leen ciy jàppale waaye am na ci ñoo xam ne nag moo leen gàddu ba léegi am ay financement yu muy financé ci ay jamono yu diis yooye bokk na ca koor bokk na ca màggal bokk na ca gàmmu am itam nag financement yoo xam ne yu sax la yoo xam ne day am waxtu wu nekk am yoo xam ne day jékki-jékki rek gaar yooyu yëpp dafa am te lu ci nekk xaalisu su koy lijjanti te xaalis bu munta ñàkk la danaa ci joxe misaal leen lu ne bu dee misaalum personnel boo boolee ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi liggéey ci mu Muxaddamatul Xidma te ñu di leen fay boo ko nattee dana dem ci lu mat ñeen fukki nit jàpp ñeen fukk ak juróom ci biir ñooñu am na ci lu toll ci lu mat fukk ak juróom-ñaar walla ñaar fukk ak lu topp tuuti yoo xam ne mairie bi ñu ngi ñu ci jàppale dinañu fayal donte nag léeg-léeg daayira bi génn ci poosam moom itam dolli ci waaye comme ñu ngi ñu koy fayal nag ñu ngi ñu koy fayal lañ mën a wax ngir sante leen ko ndax leneen loo ci wax rek day nuuru ne li ñuy def daa doyut te ñu ngi def seen kamtilaal kàttan am ci ñeneen ñoo xam ne daayira bi moo leen di fay soo tuddee loolu dañu wax ne bari na ci ñooñu ñoo xam ne personnel de armée yi la waaw ñu ne armée yi ku fay dugg da ngay fay nangam waaw ku fay dugg ku nekk da ngay fay onze mille onze mille itam bind nañ na muy tëddee kay sang am na ca wàllam kay gas am na ca wàllam kay ñaw am na ca wàllam kay jaay tablo ba am na ca wàllam ba daayira bi am na ca wàllam muy ñetti téeméer ñetti téeméer ci ku jaar ci mat morgo bi waaye fàttaliku leen ne am na ñoo xam ne dañuy ñëw te duñ jaar ci morgo bi te bari na lool da dañ waajale nit daaru xuddoos kooku jaaru ci morgo bi danañ waajale nit daarul minan mën naa jàkka jaar ci danañ waajale nit njenne kooku mën naa ñàkk jaar ci morgue bi danañ waajale nit feneen ci biir dëkk bi kooko mën mën naa bañ a jaar ci morgue bi malgré loolu lépp itam ñetti téeméer yooyu mu ciy am moom ñami fay ñëpp ak produit yi muy jënd yëpp ak entretien yi muy def ci machine yi yëpp te ñetti téeméer yooyu kepp la war a jóge képp teg ki nga xam ne moo yore entretien machine bi ma morgue yi di leen seet si weer wu dee su dara xewut su dara xewut weer wu dee dana ñëw déplacement am rek quatre-vingt mille francs la su dara xewee buy ñëw da nga koy fayaat déplacement te bu ñëwee entretien bi lu ñu war a def da nga koy fay matériel bu mu ci mën a doon da koy jënd yaakaar naa loolu dana neex a wax waa France ndax ñoo jëndoon machine yi xam nañ ni machine demee ak euh, waa Italie Italie ak France kon loolu ay charge la yu diis yoo xam ne day am ci morgue bi entretien itam day am ci machine bi nga xam ne moom lañ jëndoon di ko fóote tapis mooy technicien yi koy yi ñëw di leen entretenir dañ leen di fay déplacement di leen fay entretien oto yi nga xam ne moom lañ yor benn oto bu ciy sol ndox amut yëpp essence lañuy ñuy sol wala gasoil di liggéey ci moo xam muy yóbbu néew yi moo xam muy yi kii ki ñuy yóbbul néew mille francs ngay fay ca la ñuy ca la essence bi de bokk cala la entretien ba bokk ca réparation ya bokk ca la fayum chauffeur ma bokk te yéen ñëpp xam nga ne loolu boo doon génne li ngay fay chauffeur bi képp mënu koo fay personnel bi nga xam ne bokkul ci ñi nga xam ne ñoom la maire yi di fay ñoom ñëpp entièrement Muxaddamatul Xidma moo leen fay suñ Maxtaar mii moo yore saison bi te ñii ñëpp bu dee ci baqee googu li fay dugg ci social social ñoo xam ne daayira bi mooy jël en charge fay onze millions yëpp ñu bari la ñuy doon ñoo xam ne bu bu weer bi dee buñ génnee ñi fi jaar génn ñi jaar ci morgue bi génn ñi jaarut ci morgue bi génn ñi nga xam ne ay cas sociaux lañ tuutee kay des daayira bi mooy génn ci poosam mottali fay li nga xam ne moom la ñuy fay léeg dañuy àgg ci foo xam ne gas ba képp day jafe gaskat yi dañuy taxaw ne fii mënuñu ko gas ñett téeméer yi ñu leen di fay jànj la kon dañuy dolli li leen di fay duñ ko teg ki fi andi néew bi waaye daayira bi mooy jël en charge lépp ñu ca teg bu dee téeméer bu dee ñaar téeméer lu mu mën a doon ñoo koy jël mottali ko su wàcc suñu wàccee lu luñ ca gas ci ay pax ci diggante boobu la cay war a dolli ko jël ko en charge fay leen ko mu muy loo xam ne lu sax la lu quotidien la da ngeen ko war a xam ndax da ngeen cee bokk te bu ñu leen laajee da ngeen cee war a mën a tontu moo tax loolu faw ñu leeral leen ko bu dee ci wàllu entretien yi nga xam ne moo jëm ci jumaa ji gis ngeen yéen ñëpp ñu ci bari ci yéen sëñ Mbacke Ndiaye wax na ko liggéey ngeen ay kër gis ngeen le matériel électricité ni mu yokk ko kenn mënatuñ koo laal waaye lum ci mën a doon fii sunu poos mu ngi koy àttan duñu ko wax sëriñ bi ñoo koy jël en charge danaa ci joxe misaal sëriñ bi dafa waxoon ne groupe bi saa lu ci paan lu mu mën a doon nañ ñëw yëgal ko ko ñu ngi koy def bu dara paanee danañ dem wax ko ko ca saasa lay génne la koy defar defar ko groupe bi nag musta paan pièce bu yées 2 millions mësu ko am ba ci gën a tuuti gën caa ndaw nga xam ne bu ñu la ko wanee téléphone nii da ngay jàpp ne lii du dara bu ñu la boo demee wër ba sonn dañ naan la deux millions deux cent deux millions trois cent mooy occasion bi kenn na ko fi am boo ko jëndut sa morom jënd wa ilaa da koy commandé France wala feneen bu boobaa dana la dikk six millions sept millions waaye ne muy daxee danañ jëfalikoo ndigal li ñu sëñ bi sant bu paanee ñu dem wax ko ko waaye su paanaatee ci diggante bi ñu xool ne diggante bañ demoon ci sëñ bi ak léegi kat ci weer la toll wala ñaari weer ndax machine la machine la ma waxtu nekk lay paan sunu xel du xalaat di delluwaat ci sëriñ bi di ko wax nangam rus nañu dem fa ci juróom-benn weer yi ñaari yoon te léeg-léeg mu paan ñetti yoon ci juróom-benn weer yi waaye lu mu ci mane paan ci diggante boobu daay bi mooy génne ci keesam dem jënd ko bu ñu ko defee ba noppi nag danañ dem xamal sëñ bi ne ko ah kat ñoo ngi tuub danga noo waxoon ne lu ci paan nañ ñëw ci waaye diggante biñ ko biñ ko jënde woon dañoo bëgg rek nga ñaanal ñu luñ ci man ñu bañ la ko yëgal luñ dem ba télé ko rek ñu ñëw wax la ko waaye jublu ko du loola mooy daw yoon yu jege yi dem ci sëriñ ba di ko laaj lay doon loolu yéen dafa laaj ñu dee leen ko leeral ndax léeg ngeen gis ñu ne jënd nañ nangam def ko ci groupe bi te ngeen déggoon ñu ne sëñ bi waxoon na nangam ak nangam léeg-léeg it courant coupure courant yi bari groupe bi 4 de temps yu nekk 100 litres lay lakk su tàkkee 4 de temps yu nekk. sans litre gasoil lay lakk loo kooku xam nga neexu la jëndal gasoil waaw boo jëndee 1000 yi def ko ci bu demee bu pa bu coupure yi bare une semaine ngay toog wala lu ko yées ñu ne la 1000 yi nga jëndoon jeex na loo delluwaat ci sëñ bi naan ko nañ jëndiwaat 1000 litres da ngay dem lijjanti ba am gasoil mu waxtu wu nekk di ko ci def yooyu yëpp ay dépense la yoo xam ne yuy gaar la yu doy waar su dee ci wàllu Euh, koor gi moom kumpa amu ci wax nañ leen ko léegi dépensé nañ ci lu mat cinquante million ren bu dee ci wàllu màggal gi boo kimlee budget bi nga xam ne moo yor màggal gi génne li nga xam ne dépense sëñ bi li mu leen tudd léegi mooy li ñu jël rek yóbbu marché dem jëndi de di ñu dem rek duggee ji ko togg def nangam def nangam def nangam waaye année entretien ba ba jiitu woon loolu entretien ba la fa day pile la fa day ventilateur la fa day fil la fa day nangam la fa nangam ay millions la teg ma nga tegee bu rapport yi noppee million yu bari lay doon garab yi nga xam ne wax na ko léegi ñu dajale ko fi garab moom kenn ku nekk xam ne ni boo demoon jënd ci million ci mbuusu perméable nga koy def ngàbb ko di dem kon suñ fi indee ay kees ay millions yu bari la ay millions yu bari bari bari bari la fa nekk lu néew néew néew néew la fa ñëw ci garab ci biir màggal gi loo mu néew néew rek mën na 30 millions yoo xam ne moom ma nga fa tege eh, yëpp daayira bi taxawu ko di ko saytu ku dugg ca fajukaay ba danga fa gis lu baree baree bare ci ay matériel ak ci ay garab naka noonu yi nga xam ne mooy ànd ak loolu dépense boobu nga xam ne moom lañu jëm demoon duggi dépense bi kenn du dem jënd ay sobleeki yaa muy àndal ak diiw ak nangam di ko togg day ànd ak ndawal day ànd ak ceeb ak yu ni demee yooyu yëpp kenn limaale wu ko ci biir dépense bi kenn limaale ko ci biir quinze millions yooyu mu waxoon léegi te yooyu yaakaar naa ne ku ko bu noppee ba nga totaale ko danaa mat loolu mbaa ëpp ko kon mën ngaa wax ne màggal lu mu néew néew boo boolee budget euh, communication bi budget culture bi budget fonctionnement bi nga xam ne moom lañu doon def ak budget entretien bi ak budget faj mi lu mu néew néew néew mooy ëpp fuuf bu koor gi dana la dikk moom lu mu néew néew 60 millions nga door a ñëw ci gàmm gi gàmm gi mataaram yi ngeen moo koy seere bu ñu noppee moom itam boo boolee lépp lu néew néew dana la dikk lu mat 5 millions jëm 6 kon mu doon loo xam ne mën ngaa natt ne at mi yi nga xam ne ay programme la rek yu mag dana la coûter lu mat vingt million nga door a ñëw nag am nga cinquante deux ajjuma yoo xam ne yoo xam ne moom itam ci biir at mi dañ koy liggéey si ñi ci ëpp ci ñuy liggéey si ay ndaw lañ yoo xam ne moomu ñu seeni kër te danga leen di téye ba waxtu ba waroon a jëfandiku fees wees bu boobaa la tàmbalee ci ndekki ak añ yooyu yëpp faaw nga fàggu ko te loolu nag jotewul dara ak semaine bi yëpp ajjuma gaaw dibeer altine talaata àllarba yooyu yëpp bu ci nekk daayira muqaddamatul xidma am na mbooloo moo xam ne ñooy xëy si ci jumaa ji bale ko ba mu set wecc ñu raxas ko ba mu set wecc ñu delluwaat jumtukaay yi ñuy jëfandikoo wóor na leen wóor yàlla ne doon na luy mën a yàgg ndax espace bi dafa yaatu te karo itam day dafa ay ci matériel tax na matériel yooyu itam matériel de service yooyu dañ koy soxla te xaalis bu baree bari lay jar moom itam alxames rek la waa asxaabul na di taxawee nga xam waaye yeneen yi ci des juróom-benn fan yëpp ci biir semaine bi daay daayira Muxaddamatul Xidma ñoo koy taxawee ak jumtukaay yi nga xam ne nag mënu nekk na lu munta ñàkk te mënee su koo ñàkk taxaw yooyu yëpp bokk na ci yi nga xam ne ay frais laaj yu baree baree baree bare yii yëpp nag euh, suñ ko dee wax mooy dañoo seq liggéey bi ngeen war a xam li ngeen di toppatoo fan la jëm ndax tey bu ngeen dikkoon rek ñu ne ah waaw jébale nañ nangam jébale nañ nangam nga yor sa big daal di totaale daal ne ah ñi fi ñëw kat man na 15 mën na mën na 20 millions wala mën na 17 millions wala nangam te ñoom kat nee nañ 15 millions lañ génne lañ génne yóbbu yóbbu fee 15 millions benn roq la ci. yeneen roqo yi ca des jotoo ko woon a dégg da nga naan kon xaalis bi des na fa nangam bu ko defee toujours sa xel yaa nga calculer ni xaalis a nga fa toog moom di di di di xaar xaalis boobu bu sa xel jàppul yeneen yi nga xam ne moom même bu fa desoon yeneen ya fa ya ya ñuy defaat ginnaaw bi yëpp bu ñu defee rapport ba andi la ne la defal nañ nangam def nañ am jot nañ nangam def nañ ci nangam des na fi nangam nangam jooju da ngay jàpp ne lu fi mën a toog la di xaar misaal am na ci bi bi koor gi jub dañoo wax ne soxla nañ nangami junni kopp téeméeri junni kopp ñu daal di andi téeméeri junni kopp ca am ñeneen ñu andiwaat téeméeri junniy kopp ah comme téeméeri junni kopp ñëwoon na fi kat xanaa téeméeri junni kopp yi mën nañu ko wecc mën leen deet yéen da ngeen a calculer ga mag euh, gàmm euh, koor rek waaye bàyyi leen fi yeneen téeméeri junni ndax bu ñu ci kooree mën naa am ci yenn téeméeri junni yéen jàppoon ne dana mat koor mën naa mu manqué ci koor te buñ ma waree ba noppi itam màggale ngi ñëw te bu màggal ñëwee dañuy soxla kopp yi bu ñu màggalee ba noppi gàmmu ngi ñëw bu gàmmu ñëwee dañuy soxla kopp yi kon ndax kopp yi na def mën a toogaat ba kooru déwén waaye teewul ajjuma ju ne ci la ñuy ndekki yeneen bis yi ñi nga xam ne ñi ngi liggéey si itam semaine yëpp sax mën naa wax ne semaine ci la ñuy euh, liggéey liggéey si euh, ajjuma ju ajjuma ju ne ñoom li ñuy participer ci dépense mooy nekk quarante mille francs waaye quarante mille francs yooyu ñuy joxe sëñ Afia danañ tegaat quatre-vingt mille francs kon liggéey bi diis na lool ci kawam njiit nag moo metti waaye dépense bi quatre-vingt mille francs lay doon ñoon yenn sa yenn sagar quarante mille la ñuy jéem mat la ñuy jéem a lijjanti teg ko ci loxoom mu tegaat ci yeneen quarante mille moom ngir toggale ko daayira bi añ waaw dama ko ginnaaw di ko wax nag xëy na su ko déggee lu lu ci teg baax na <laughs> waaye noonu la demee day laaj rek ay nit nag buñ seqee mbir ñuy xam na muy doxe ñuy xam na muy doxe da ciy am solo lool moo tax liggéey bi nekk na lu diis loo xam ne soo toogee ne di ko dégg walla nga di ko séen da ngay jàpp ne lu yomb la waaye lu diis gan la yii yëpp nag jotewut ak léeg-léeg dara nag kuy ci suñu kaw loo xam ne sëñ bi day jekki-jekki ne nangam ji jóg leen defal dem leen defale ma ko duñ dem ñoom duñ laaj sëñ bi dara duñ laaj sëñ ñu def loo dañuy jàpp ne ñoo war a fexe ba loola am te moom lu ci def dara waaw sa xëy na mu saytal boppam yëkkati ni lii maa leen ko jox wala maa leen ko dimbalee waaye ñoom duñ ko laaj dara ci lu mu ñuy def loo moo tax financement bi nekk lu diis gan loo xam ne waxtu wu ne mi ngi daanu ci sunu kaw di côté ay millions mataan mii su defee rapport bi muy def par ba génne ko envoyé ko ci secrétariat général maanaam déficit bi ciy am léeg-léeg dalay jaaxal boo at mi jeexee déficit bi day toll ne danaan gaañ nekk ay millions yoo xam ne daayira bi ñoo ko dugalaat ci biir yi nga xam ne ñu ngi ko doon def day sutura nag soo xam ne suñu borom mi ngi ñu ciy suturaal bu baax a baax ba dara génnu ci waaye nag dañoo tëju ci néeg di waxtaan seq ab liggéey lañ seq dañ ko war a leeralante ci suñ biir ba mu leer nañu ndax ëllëg kenn ci yéen ku nekk mën naa taxaw ñu laaj ko nan la mbir yi demee yéen kat nangam ak nangam yéen mi ngi am lu lu ngeen yor ndax nit ñi dañoo baaxoo lii dugg lañuy gis waaye du ñu gis lii génn. yow mi ci bokkit nag boo war ngaa fexe ba xam war ngaa xam lii dugg waaye war ngaa xamit lii génn lépp ba mu leer ci sa bopp ba bu ëllëgee yow dara du la ci jaaxal kon nag nekk na ay taxawaay yu diis waaye yoo xam ne nag suñ ko manee yàlla ak seeni taxawaay moo ñu ca gën a dimbale bañ ma ne ko nii ñu ko manee te lépp ànd ak dal ànd ak sutura ànd ak defin wu rafet wu ànd ak yéene ak pas-pas bu rëy màggal lu néew néew sëñ Fallou dajale woon na fa lu ëpp junni nit yoo xam ne nekk nañ fa lu mu néew juróomi fan yoo xam ne seen dund seen naan seen fi ñuy noppaloo seen lépp moo ko yoroon loolu rek junj doy na borom xel ci ku bëgg a dépenser junni nit nga dépenser leen une semaine yor leen xam ngeen ne lu diis la lu metti la waaye nag lépp taxawaay yu am solo yii ngeen di taxaw tax na ñu man ko manin wu rafet kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm waaye nag di wax ne cant ngeen gërëm li ñun duñ ci sori dañuy seere rek dañuy seere waaye li ngeen di jëf moomuñu ko yéen ñi koy jëf yéene ko moom ki ngeen koy jëfal itam moo ñu gën a neexu gis gën ñoo neexu dëgg te moom bu lu ko ñemewul bor dafa am pay te daanañu wax dañuy faral di wax ne ku ko lebal ker mu fay la guddi fépp di ker ku ko defal loo man mu defal la loo mënut boo ko defalee loo mënut mu defal la lu la jomb kon kooku la sëñ Saliou daan wax rek man kuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa duma ko yërëm ndax sama bët day tege ca pay kon nag nañ ci gën a góor góorlu te xam ne lu ñu ci def rek doyul am na ay bokk yu ko fi wax léegi yaakaar naa sëñ Fallou Diop ci la bokk liggéey bi moom gis na ne te keneen ku dul moom gis na ne fi mu toll war na koo weesu ah kay waaye ay tànk la rek yooyu dox li tax loolu di dem ci xelam di dem ci xelam ñeneen ñi ci des mooy Sëñ Tuubaa moom bëggee mbir yi di doxee noonu lépp lu jot rek daf koy jël dugal ko ci xeli nit ñi nit ñi daal di koy jéem a matérialiser. mu sotti jumtukaay yii ñuy laaj it ngeen xam ne ñu ngi koy laaj muy ñëw waaye lu ci nekk bu ñëwee luy dolli fere la lépp luy dolli fere la ab oto ngi fi sëñ Ablaye Diop mii moo ko seere bu bu bu vidange boo xam ne waa France ñoo ko fi indi woon wóor na yàlla ne lim ci ñàkk ci xaalis bu leen ko waxoon ngeen tiit waaye danaa jox benn lañ koy tuddee anecdote lañ koy wax man yàlla dogal na commission bi nga xam ne vidange yi ñëw ci màggal gi ñuy vidé barab yi nga xam ne màggal gi daf koy soxla ci laa bokk waaye barab gis nga fosse bii nga xam ne moo nekk ci armée li lum néew néew néew ñaar fukki voyage jëm fanweer dana ci génn mu door a jeex nga door a vidé Bakhina door a vidé jumaa ji nga loolu nag soo ko waree di def di war di wàññi waxuma di jéem a wii di kër Sëñ Tuubaa de waaye di war di wàññi léeg-léeg bu boobaa tey taxawaay lay laaj yu baree baree bari tey fere lay laaj bu rëy rëy kon loolu jumtukaay la waaye jumtukaay yi dañuy fere waxtaane nga may leeral léegi ne ci màggal gi rek ñeenti keesi camion yu rëy yooyu ñuy teg ñeenti kees yu fees dell ci mbalit génne na fi ak juróom ñaar fukki poubelle yooyu ngeen gisoon ci jumaa ji yu ndaw lañ koy tuddee ndax kees fa nekk waaye benn bu nekk mën naa jël lu mat ton baa lu jege ton ci mbalit kon loolu du ndaw lu doonul lu ndawi kenn daa dend ak yu ko gën a mag kay moo tax ñu wax naan yu mag ak yu ndaw waaye yu mag la ndax benn bu ci ña juróom bari ko fees amul te amoon nañ ci juróom-ñaar fukk waaye amoon nañ téeméeri nit yoo xam ne dañ doon wër di laaj addiyee mbalit loolu moo tax guddeeg bëccëg suba ngoon mënoo fi woon a gis dara lu tax ci biir jumaa ji yii daal nekk na yoo xam ne lu ñu war a xam la ci sunu biir mën naa bañ a doon loo xam ne dañ koy waxtaanee ci publiquement waaye nag ñu ñu ko seq dañ koo war a xam mu nekk ci sunu biir ñu xam ne lii ñuy def kat fii la jëm boo liggéey lu lu la waaye mën a laaj nga mën a xam lan ca mën a tontu la ca mën a génn ak la mënta génn la mën a génn nga génn ko la mënta génn nga téye ko ci sa biir waaye fekk nga xam la ca nekk lépp kon nag ndaje mi nekk na ndaje mu am solo moo xam ne euh, li ci génn li ci jóge rek ci information jëm ci yéen ñi nga xam ne ñeen lañ seqal liggéey bi doonoon na jaroon na ñu woote ko kon nag ñu ngi sant bu baax di leen gërëm bu baax ci teewaay bi di ko rafetlu lool di sant mboolem ku amoon yéene teew te teewut di santit képp koo xam ne jëf na ci mu tuuti ak mu bari mu jege ak mu sori ak képp koo xam ne dugal na ci ak jàpp ndal di ñaanal nag bokk yi ñu seqaloon liggéey bi te ñu wan ñu ginnaaw wuy ji seen borom di leen ñaanal suñu borom dolli leen yërmande te dolli leen njëggal xaare leen àjjana teg loxo ci seen i njaboot yéen ji ñu amoon yépp ci seen njaboot amoon ko ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi suñu borom wuutal leen ñoo xam ne danañ mën a mottali yéen yooyu di ñaanal mboolem koo xam ne bokk nga ci liggéey bi te ak wéradi gaar la wala am ndok ak ndok xeetu ndok bu mu mën a doon sun borom wuññi say njàqare tegg sa saafara la defal la jàmm ba nga mën a dellusiwaat ci liggéey bi doxe ci na nga ko bëggee di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu teewaat fi nëgëni déwén kenn bañ a manqué di sant nag bu baax ñi coordonné liggéey bi ñi coordonné liggéey bi danañ ci tudd euh, ñett kenn ki di koordinateur général bi waaye tey dañ koy dëkkale Europe muy Serigne Assane Diop donte mooy coordinateur général bi tey dañ koy dëkkale Europe kon Serigne Assane ñi ngi lay sant di la jottiloo cant mboolem ku bàyyi ko Europe te bokk ci liggéey bi di sant Serigne Mafari Ndiaye di mi nga xam ne moo coordonné lépp luy Afrique màggal gi sax fekk ko fi ma nga Guinée équatoriale dafa waajoon ba ne ma altine lay ñëw waaye ba mu demee taalibe yi langaam yi ci moom ne ko genn kilifa nekku fi kon tey duñ la bàyyi mukk ngay dem waaye yaay màggale fii waaye sëriñ dafa nekk dafa nekk koo xam ne fu mu dem ci àdduna rek lay yitteem mooy xamal leen liggéeyu daayiratu Muqaddamatul Xidma jéem ko faa taxawal kemtalaay kàttam fexe ba muy dox kooku itam wax dëgg yàlla ndaje mi wuute googu képp moo ko ko teewee waaye xam nañ xolam mi ngi fi kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax te di ko ñaanal suñu boroom defal ko yoonu jàmm te delloosi ko ci biir njabootam mu mucc te ànd ak xéewal di santitam sëriñ Serigne Cheikh Jonn mi nga xam ne moo coordonné liggéey bi ci Amérique dégg ngeen ni ko sëñ Abdou Lahat waxee léegi ak Serigne setu Lam nga xam ne lépp luy Amérique ñoom ñoo ko coordonné kon ñoo ñëpp nag ñu ngi ci suuf coordination Serigne Assane waaye sëñ Assane nag tey dama dama leen ko féetale yéen waa Europe mu bàyyee Afrique sëriñ Mafari Ndiaye bàyyee Amérique sëriñ Cheikh Jonn ñeneen yi ci des nag mën na leen a jël bu noppee bu noppee nag bu ndaje mi dampee nag mu jëlaat coordination lépp kon moom moom moo war a sant nit ñi ndax moo leen woo lu baax ñu woy si ko waaye ñu amel nañ ko cant amel nañ ko ngërëm ndax dañ ko yàqal ab liggéeyam waxtu wu ne di ko yàq di jël ci temps loo xam ne bari na lool xelam ak xalaatam ak alalam ak man-manam lépp daf koo jëme ci liggéey bi te lépp sàkkawu ci dara daayira bi amul lenn loo xam ne da koy daf koo gàddul Sëñ Asan lépp moo koy def di ko jaayante ngir yàlla ak liggéey bi jëm kanam loolu bari waa na fu waay yëngoo dañ naan bu bu génnee nangam am ca nangam wala nangam Sëñ Asan dara du jaar sax ci loxoom lu jëm si ci daayira bi danaan na jaari ca ginnaaw yóbbu leen ko jox leen ko si sëñ Aafiya jébbale leen ko ci daayira ba na jaare neneen la wax waaye dara du jaar ci loxoom bari na fu muy dem foo xam ne mooy wutal boppam paas dem lijjanti ba daayira ba taxaw fa samp ko fa euh, liggéey ci liggéey bu rafet dellu fa mu bàyyi koo woon léeg-léeg daf may téléphoné ah maa ngi jëm bi rek sàngam de nag ma ñaanal ma ne ko ah boo demee sëñ Tuubaa la fay jiitu ndax xam naa pas-pasam xam naa pas-pas bi mu am ci sëñ bi loolu moo tax dama ne ko ah, demal rek yow boo demee rek sëñ Tuubaa dafay jiitu waaw ndax yéeneem ak pas moo toll foofu kon nag moom ñu ngi jaarale ci moom ak cant di sant ñëpp di gërëm ñëpp di santit euh, ñaari sëñ Abdou Lahad yi nga xam ne ñoom liggéey yi ci seen loxo la tege ñu di leen ko taxawuloo ci biir daayira bi ba ñu nas ko na seen wu rafet bi ba tànn bis bi ñu daje fi daje wu rafet bi ci njiitul sëriñ Abdou Lahad Mawarsa ak sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Thierno ñu ngi leen sant ci ci turu bureau daayira Muqaddamatul ma bépp di leen gërëm ci turu sëriñ Afia bu baax a baax waaye di sant mboolem kilifa yi fi teew yëpp ñoom ñëpp ñoo bokk cant kooku dafa fekk ne rek faaw nga tudd aw wax ca dara waaye tur wi ne kenn ku nekk na jàpp ne turu boppam la moom lañ ci yéene ni ñu ko waxee sëñ Assane rek ni lañ ko yéenee ci ñëpp ñaan ñu dajawaat fi ni ngeen déwén kenn bañ a manqué jërë ngeen jëf jërë geen jëf yàlla kon lii sëriñ Cheikh Abdou Latif di wax nag ne sëriñ Mëndumbe moo ko daan wax murit euh, nañu wàcce ngërëm te dellu xaar ndigal murit di wàcc kon nag nañu delloo ngërëm tey xaaraat ndigal murit di wàcc ndigal li nag dégg ngeen ko lenn rekk a ci am pas-pas bu jëfe ko te bu ñu amee pas-pas bu jëfe ko rek Sëñ Tuubaa danañu may xéewal yu ñu ko jëfe yàlla na buñ buñ fiy teewaat ni ngeen déwén loolu moom na fekk ñu féete ñu gannaaw bañ jubluwaat ci yeneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. def sëñ Abdou moom moo doon wax ci turu sëñ Afia dégg li mu leeral ni mu ko leeralee day mel ne leer na ci ñun ñëpp xam naa jotaay bi mi ngi bëgg a yàgg sëñ Afia dellu si na kon xam naa dañu tàllal loxo yi rek mu def ñaan ñu dellu ci yitte ba beneen jotaay incha allah bisimilah.